ku ci sa soxna accouché boo laajtee doom bi lan la ñun la doom bu jigéen la nga ni dañ ko suul waaw ndax nag wax ni jigéen def dul amal kenn njariñ mu ne ah, xanaa ca seen booba jamono la waaye bii jamono dafa mel ni jigéen ñi ñoo yore lépp waaw tax ñu daan lu seen doom yu jigéen ñi ba ca biir pax ma fa la ñuy faatu yàlla nag nee na ci bis boobu dana laaj ñi doon suul doom yu jigéen yooyule le ban bàkkaar la doom bi def ba ñu teg ko lu toll noonu waaye ku ñuy laaj ban bàkkaar la doom bi def ba nga teg ko lu toll noonu moo lay xamal ni it fekk ku ñu suul ba noppi nga déteere ko yàlla dina laaj bi ay yidan bi lan la def ba nga déterré ko di ko wax yàlla looloo taxoon fii nii bi ñuy ñëwee fekk ñu denc Khatib Touré fii ñu tëral lañu ñu tëral jël koor ba yóbbu man le lendemain lañ ma soog a saisir ñi ma kooru kaatim yóbbu nañ ko waaye waxuma ca gëm ni ruuxu kaatim fa mu nekk n'a rien ak kooram ñu yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko ba xam ne amatuñ ci pexe bërki démb lañ ko doon dencaat fii waaw waaye fekk na nit ku nekk ak wërsëgam biñ ko jëlee yóbbu ko benn mag daf ma yónnee ndaw ni ma bis bu kaatim dellusee ñu war ko dugalaat ci pax nañ ko jàngal allahumma ya man azhar al jamil juróom ñaar fukki yoon tëflil ko ko ci biir pax bi mu soog fa dugg xoolal lool ndeke wërsëg boobu la doon xaar ah mu ñëw bërki barki démb juma ci bi ñuy def xadaratul juma ma ni nañ ma wol juróom ñaari nit yu sell rekk te wool ma imam Samba Diop ñu ñëw ma ni dem leen ngeen xottiwaat beneen perkal ndax perkal bu jëkk ba jëmmi awti awtee gi ñu koy awti awteeg glace yi ñu ko doon tëral pour ñu teral ko nañ ko jëndal beneen percal bu bees ñu lëmas ko ci soo ko dugal ci bàmmeel waaw waaw ñu defal ko noonu mais loolu nekkul woon li ma jaaxal en même temps que ñuy yónnee pour defar ko dugalaat ko Cheikh mi ni ma Aziz Touré ak Daba Touré ñaari doom yi rekk la kaatimaam ni ma ñoo ma yóbbante woon ma ni ko lu ñu wax mu ni ma nee nañu bu xew-xew yii daan am gàmmoog leneen seen papa daf leen daan jox dog ci jawharatul kamaan xoolal loolu te ay junney junni ñu di ay xaleel seen papa di leen ko jàngloo ni leen pour ngeen jàngal ko Serigne Moustapha ndax événement bi ñu yónni Cheikh nag ni ko ndax am nañu ndigal continuer ko wala déet xoolal loolu doomam bu góor bi Abdou Aziz man maa ko yar ca daara ja waaye Cheikh day ñëw léeg-léeg dafay ree sax boo ko nee lan la mu di ma xanaa Aziz Touré ma ni ko ah mu ma bi ma paree bay dem def ni ma Cheikh ma ni ko la béykat mu ni ma boo demee ni Sëriñ Moustapha ma ni ko ah mu ma yàlla na ko yàlla làq fa yàlla làq boppam ma ko ñaanu xale la de waaye kenn xamul loolu ba fan waaw ndeysaan waaye fekk ne ku nekk ak la nga doon ak la nga nàmp waaw loolu la donn ci seen papa loolu it la nàmp ci seen papa waaw bu ko defee kon nag bu fekkee ni yàlla dafa wax ci alquran hal ataa ala al insani xiinum min addahr lam yaku shay'an madkura te sëriñ wax ne hël bi du hëlu istifham yàlla interrogé dafay confirmé maanaam hal ata ala al insan yaani qad ata ala insan xiinun min addaara yàlla nee na kañ la ñu commencé di tudd nit ci gannaaw tuuti rek kenn doonul woon xam ndax nit dana am wala déet